Euh, say waxtaan dangay faral di jël ci moom ay référence mhm. euh, boo ñu doon andil ci benn témoignage si ab laat lan lay doon alhamdulilah yàlla na yàlla yokk leeram mhm. yokk yërmandeem euh, moom dafa doon koo xam ne kii mhm. ni Luqmaan mel bañ tudde ko Luqmaanul Hakim yi mel noonu la yàlla mayoon bu yëkkatee kàddu foog ñu déglu ko ndax ni meloon ci technique de communication. Mhm. waaw. Mhm. amoon amoon njàmbaarte goo xam ne gi mhm. chef de l'état la woon. waaye amoon njàmbaar goo xam ne gi euh, kilifa diine la woon. ñaar yëpp daje ci moom. ma tax su ma saan di wax ci daal da ci jël position bi mu ci war a jël. léegi nag walla yoo xam fi laay lawbati laay. waaye man damay fàttaliku. ñaari jataay yoo xam ne am nañ ko. Mm-hmm. ba ñett waaw ba ñett. Mm-hmm. benn bi maag Serigne Moustapha Cissé ba leen nekkoon euh, député maire bu Louga. Mm-hmm. dëkk na ñoo fa àndoon man ak moom El Hadj Ndiaga Ndiaye. ak Mor Fall chauffeur bi. keroog fa lañ yendu ba ngoon jot bi kenn ku nekk la desoon ci sa añ ko defal ci oto bi. allahu hmm? maanaam boobu ay xar la sama sama xar El Hadj Ndiaga Ndiaye am xaram. Euh, Moustapha Cissé am xaram ba am xaram ba ñuy dem nañu nañu ko defal oto bi ñuy yóbbaale ko ndeysaan waaye mu nettali ñu nettali bu am solo ci wàllu tàmbalib liggéey bu mel ni mm-hmm. woote ci diine ak fi muy jëm mm-hmm. mu nettali ñu tukki bu mu tukki woon Dakar ak benn tukki bu mu fi tukki mu ne tukki bu njëkk ba lépp luy coono dañ na ko ci mm-hmm. ñaar lu tukki bi lépp luy noflaay dañ na ko ci ndeysaan xanaa ñaar mooy bi mu seetee Ndiogou Kébé. Ah, ok mu woy bu ñaar bi. Mm. nee bu njëkk bi ba muy ba muy ñëw oto bu ko indi mënul am. ndeysaan. ba nee na ci oto bu lañ mujj yéeg ca kaw ngooñ ma. ndeysaan. ba xombal. ndeysaan. la ca tege tege ca. ndeysaan mu ne ma tukki ñaar bi nag ci ci moo gën a ëpp naflaay foofu. ndax ba ñuy dem. war nañ war waay waxam ne ñoo ko moom. ndeysaan allah akbar. mun nañu nag lii ngeen nekk nii di liggéey ci diini. Mm-hmm. ñaar yooyu gépp la mm-hmm. tukkib Dakar numéro un tukkib mm-hmm. waaw maa wax numéro un numéro deux même waaye waxutoon baat boobu mm-hmm. mooy kon balaa mu ne war nox nox ne war war balaa neex na xari balaa neex na xari yóbbul bu ne moom moo nu ko yóbbuloon ndeysaan waaw nu ngi toog nii imaam Ibrahima Dia mii nekkoon ci golf papaay Pape Dia ca la ko fekke woon ndeysaan mas nañu am jataay boo xam ne moom itam ci carte gi ñu carte ci réew mi carte ga dañ ko tudde woon ma dañ ko tudde woon gàmmu mhm. def ca fotab jenn jumaa ci sunu jumaa yi mhm. ban ko ko wanee mhm. dox na ci ba mu dañ ndeysaan allahu yàlla na yàlla yokk leeram en en tout cas waskuru fil moom soo ko dégg ci alxuraan rek mooy jàng leen dunduk diw ndeysaan kon nag jàng dundam gi am na njariñ lool am na njariñ lool te itam mën naa yokk nit taxawaay mën naa yokk nit muñ mën naa yokk nit fit mën naa guñu taxaw ma jeexal ci lii ñuy def nii mhm. muy di wax ci ci téléphone wala ci rajo walla ci nangam di jàngale mhm. daf ne mhm. wax na ngeen ci moytu ñaar bu ngeen bëggee mu jag bu leen ci fay bor bu leen ci leble daje woon ci moom fit ngor jàmbaar te ñett yooyu daanaka ci képp ku mu dajee rek ndeysaan di nga taxawal lu rëy ndax xam ngeen ne 1968 la wootu sëñ Fallou ci liggéey bi liggéey fi liggéey bu am solo def ci loo xam ne histoire ba léegi daf koy nettali. ndax euh, li njëkk dafa bari loo xam ne daf ko liggéey ci xilaafam ndax ci tarixa yi. Euh, buñ ko daa wax mooy leen ñett ñu bokk ndey ak baay kii xees kii xeereer kii ñuul. ndax am nga droit tam ci kenn dem. loolu mooy tarixa yi benn lañ. mu jëf jëf ju am solo. liggéey ci liggéey bu am solo boo xam ne euh, wax nañ ne bi ko sëriñ Abdoulaye Mbacke sëriñ Abdoul Aziz baax di gane si mhm. eh, daf ko laaj naka ndax jaar nga ca Serigne Dame Abdourahmane Lo mhm. non Serigne Modou Moustapha woon mhm. mu ne ko ndax jaar nga ci sa baay Serigne Dame Abdourahmane loolu lépp day jàngale ne kon mag ñi eh, benn lan woon ci liggéey bi eh, kon yàlla na yàlla def tawfeex bi mu génnee àdduna bi sëñ Abdou Aziz Dabakh jógee Tiwaawan ñëw di ko jàlle sëñ Abdou Khadir kenn bokk julli ga ndeysaan mu jiite ko mu li xaamal ko yooyu yëpp day wane mbokk ak lislaam gi alhamdulilah kon yàlla